داعي الذي كفى الخطوب إلى بنوري سما ويتوبان fas yéene dugg ci biir waxtaan bi di leen jot yi kàddu nuyoo ak kàddu cant ak kàddu ngërëm yu ci suñu nekk jëmmi Serigne Touba di Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal mu yàgg ci lool te ànd ba mott bi mu waral ay yéenam ak i naaram te dara génn ci liggéey Serigne Touba mooy kilifa bu ma sëkk kilifa kilifa boo xam ne li ñu doon kilifa foofu gisee rek sax dem ci woon mooy delloo rek sa borom. leerug Touba mooy kilifa boo xam ne itam ku ko xam ci mën a mun. mën a dékku ak fàtte boppam lu néew néew la muy jëmbu joo xam ne la ko waajuróom Cheikh moom ba si seeraloo rek nekk ma jaaxal de moom Muntaxa ndax moom daa bëgg dara moom kat bëgg naa dara de waaye dama bëgg moo jafe kon kilifa bu mel noonu bu ko am war ngay fàttali bu baax ci ginnaaw bi nga nekk ndax doon ne sëtti seere mooy sëtu Serigne Touba bi njëkk a taxawu doomu Serigne Touba ci ndigalu Serigne Seere bi mu demee ba doomu Serigne Touba yi noppi jiite ci jullikaa am jiitam Serigne Seere moom la tànn taxawu ñu ko wax ci woon kon de Serigne Ndiaye wax rek li yées ci adduna mooy xam xam lu amut ak am lu amut kon yàlla nañu yàlla dimbali waaye ñu topp ci ginnaaw bi suñu kilifa ndax moom kat kenn mënu koo xeetu dara du ci jikko du ci jëf du ci xalaat du ci doxalin te lii itam yëpp génnut yërmaale ci nit ñi génnut bëgg ñëpp am jàmm boole ko rek jaam yàlla bu ma sëkk te bu fépp jëf mu génnee ñëpp xam ne ci dara mu jaaxee moom. moom dañ koy ñaanal yàlla di nuyu suñu kilifa yu tedd yi nga ne. moo leen jox ndigal yàgg na ba Cheikh Mouhamadou Bara jëlee liggéey bi teg ko ci sama loxo maa ngi koy fàttali si ñu soxla suñu Muntaxa moo woote woon ci kër Sëriñ Tuubaa ñëpp toog boobu Cheikh Sidi Mokhtar bi nekk maa ci am njëkk bu woote waa jëmale Sëriñ Tuubaa yëpp nee naa boobu ngeen ànd ba si lu jàppale ko ci liggéey ndax mos a yëngu daal suñu saa yi yaa maa bëgg a seeral lépp boo xam ne ci ba wax ba sa jataay ba waxoon na fa kàddu bu diis ne bu ma ko sañoon tamal ko de man ñi may laxasaay toog ci ginnaaw waaye du ma du dañ dina ci ginnaaw ba ba nii waxtu wala damay danaan ma li jiitu ci sama liggéey mooy sàmmal la liggéey bi ak loola ci noppal kon suñu cat ci moom yàlla suñu tubaab yi ko seetal bu toon lépp itam xam gi ñu xam li muy def ci digg man boromam ngir bëgg ñëpp am jàmm fu ngeen yëkkate mu fu ngeen déggee mu santaare bés ku xamal lam ci dexañ ci biir ngir bëgg ñëpp am jàmm am xéwal nit ñi fu toll war nañ koy ñaaw yow kon ñu ngi nuyu suñu kilifa yi baax yi nga xam bi nga xam ne la juróom benn wala juróom ñaar waaye boobu ba léegi ni kenn tayiwu ci kenn toppuwu ci waxtu la dañ seen procédure bi gën a yokk ngir xam nañ ne suñ tubaab yi liggéey. leerug Touba sant bu baax ci ànd gi ci liggéey bi ndax loolu itam noonu la Serigne Touba doxaloon ak bi aw liggéey ñoom si euh, def ñëw la ko ñu itam ci yow képp la ñu te loolu Serigne te ñu jot li kàddu yi nuyoo nag yoo xam ne ñu koy teg ci loxoom gouverneur de la région bi nga xam moo jiite liggéey bi ak service yu ñu ko soxal te ka ñu jiitu du préfet bu Mbacké sa sous-préfet bu Ndam nga xam ne ndaje yi ñëpp def ci commune Touba ca Serigne Ousmane teewe ko ak Serigne Mbacké ñoo ko àndoon ba liggéey ca solo ci liggéey demaat ca euh, ndaje mbàkk waaye defaraat ko ci commune ndax mu gën a yaatu ba li cëpp lu waxtaanoo ak chef de service bi bu mu ngi yëkkati ñu nga jot nit ñi ko ku jiite réew mi di président Diomaye Faye ku yóbbante nuyu sëriñ bi ak wala ñu seq liggéey bu ñu tuddee premier ministre Ousmane Sonko tudd ci ministre de l'intérieur mi nga xam ne mooy coordonné liggéeyu mag bi ndax wàllu diine ji ci foofu la nekk di leen ñaanal suñu borom dimbali leen ba yaakaar ji réew mi am coono suñu borom koy ko tas ndax yaakaar rek nit ñi moo tax ñu fàtte suñu kilifa bu baax la si Abdoulaye Mbacké daa wax ne yaar rek a fi am ci la xëyee ak ci la gontoon mu ne mu ne kii ne xëy na daa tëdd ko guddi jaaxle ci biir xelam xalaat ba sonn xel rek moo ne nit waaye nga nga ba yaakaar mu tase ci yow nee na ci la gontoo itam daa xëy woon feneen yaakaar mu defoon mu dem fa boo ko yaakaar mu tase fa mu gontoo la kon dikk na nga fi wax ba yaakaar bi dootul tas kon nag ñu ngi rafetlu liggéey bi nga xam ne moom lañ sóobu xam naa bu ñu demee ci biir. Serigne Ousmane bi nga xam ne mooy bi nga xam ne mooy saytu mag ak ñi ko àndal ak seen i li jëm ci wàllu liggéey fi ñu ci toll ak li ñu ci war a jëyante ndax màggal gi moom bisu Serigne Touba. leeru Touba suñu doon def def ci def la fi ñu ko wootee tey ci daje bii di gouvernance bu njëriñ Serigne Touba fii la jëkk a wootee màggal gi 1921 wala 21. daa am jiw waaye génn ñaari at yooyu ci la sëñ Tuubaa xëy bis ne yi ma sama borom doon te jeex na li ci des ci lépp ak payta ak xéew màggat yi saa su aseetee moo suñ doon defaa da koy fulaat ba mu noonu fii la bootoon ci ñebe yëmutoon ci woote ko wax waaye dafa taj njëkk a moom ci ci biir këram mu mujj màggat gi dem ba génn penc bi kon sëriñ bi. lii mu woote wa ñu fi jaboot Sëriñ Tuubaa ñu fa wuti yëpp di ko woote ndigalul Sëriñ Tuubaa waxoon ci ay waxam yooyu ginnaaw bi tam ñu ko fa wuti ñëpp wóyul ko tàmbalee ci Cheikh bi mu fi nekkee ñu ko doon dundal ni ko sëriñ bi daa dundale te boo ko dana ko daal di sëkk ba Cheikh Mouhamadou Fall Mbacke ñëw woote ko ca Touba ne léegi sëriñ bi kat mi ngi Touba nañ ko woote foofa ginnaaw bi tam Cheikh Abdoul Ahad Mbacke ñëw. woote wax ko bi nga woote itam Cheikh Mamadou Fall dégg nga la waxoon ba mu ko daa waxoon na waa penk bi dañoo am bis waa waa soow bi itam ma bëgg ñu am bis man yaakaar naa ñaanam boobu la adduna sépp tëg nañ ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké bi ñëwee bu wax ne màggalu Tuubaa mooy suñu fête indépendance dafa wax ñëpp ñu dégg te loolu itam lu wér a wér la ndax fête indépendance bu assee ci Sénégal bis bi Sénégal moomal boppam ci saa yaakaar naa ñu xam nga tey kenn liggéey ci lañ ko yëngu wala ci télévision lañ ko yëngu waaye màggal Tuubaa képp mooy màggal goo xam ne bu nuyu bu daal boo xam suñu dëgg-dëgg feneen daal mooy lu ndax bu Sëriñ Tuubaa demutoon ci géej gi kon tey l'islam dana fàtte l'islam dana saa fàtte Sénégal kéefar dana fi rot ak tubaab bi dana fi rot gi mu doogoon ci bis bi ba suñ ko fayoo ko mu bi jub xalaat ndax koo xam ne yaa ngi defar bis ñëpp sa bis mënta waxaale sëriñ Saliou nag doo ko tënkoon ci lu daa wax ne màggal Tuubaa de gan ñu bëriwut ndax mooy kilifa diine yi ak waa nguur gi ñu ci des ñëpp nag taalibe yu siyaare seen sëriñ daanaka moo tax màggal organise ko dafa nuru lu jafe waaye lu yomb la ndax li tax mooy taalibe bu nekk dana fexe ba koo xool bi nga fi bàyyi ko itam association moo doon baax comité organisation bi ñuy wax tey ci nekk na tam Cheikh Sidi Moussa itam ñëw bokkaat ko dolli ci bëri bëri ba association moo doon taxaat yàlla fi yàgg taal bi moom itam daaw boobu ñoo joxaatam dafa gën a yëkkatiwaat ngir xam ne bis bi moo suñu defar ba suñu defar ba laaxee ñaar ñi mu woote woon yow bokk na ci daan def façon daal day mbirum baati lépp di su ko a leeral waaye kat la ci mujj mooy waajal ko ak Tuuba kon xam na nag Tuuba fa day toll kon màggal gi rek du jar soñ ci li tax ndax Sëriñ Tuuba lu dox digg ma borom moo xëy bis wax ne loo ko ci ñëpp santal yàlla li tàmbalee ci gannaaw ba ci gideem am xaafet la ci ñu créé mooy am xaafet kon ak jaamu yàlla jaamu yàlla ci màggal Tuubaa la ci jiitu mooy ndigal li ci Sëriñ Tuubaa defam la lu ci dolli ko wax dañ ko ci dolliwaat ngir xam a lu baax la ak bañ nit ñi la mu ci digleel boppam nag te léeg-léeg ñenn a jëli jeex di ko teg ci la mu ci santaane woon mooy gàncax kon màggal bi suñ gàncax la. loolu itam la yàlla Sëriñ Tuubaa deful ni ñu koy layee bii ñu weesu nag suñ borom dafa wax rasulullahi sallallahu alayhi wasallam dafa wax nit defalu ci jaamu yàlla lu gën rek lu ñu def xaar kon bisu màgg ñu war a def lan yanaala llaaha luhuumuhaa wala dimaahuhaa walaakin yanaaluhu taqwa minkum ba ko sëriñ bi woote itam mag ñi daa ko tuddee ak tëbs ki wax sëriñ Saliou moo njëkk wax ne moo ne sëriñ Tuubaa moo njëkk wax ne bu leen koy tëbs day day faral sunu mas yi dinaay Ibrahima kon dee nañ ko tuddee am màggal baaxul màggal ci Sëriñ Tuubaa yi ñu loolu moo tax ba léegi màggal bi nag moom yaari fan la mooy fan bi nga xam ne nguur gi ñoo koy def te li ci ëpp mooy li ndox kon loolu itam xam naa bu ñu ci liggéey daañu wax fi ñu ci toll rek jiw yi jërëf kon ñu ci. ñaar ba ñu gën ci góorgóorlu la ci des mooy wàllu assainissement bi nga xam ne dëkk i xam nañ liñ ci jànkuwanteel te màggat yore nekk ci digg nawet bi loolu itam yéen da ngeen di yàlla faral ci tool ba ca des it mooy wàllu courant courant bi itam xam ngeen ne Touba ni muy màgg di toog ndax ay 2003 2004 Touba mi ngi tolloon ci méga méga mètre weer méga la seen seen tool fii may wax ak yéen nii. dem na ba àgg ci cent mégawatt kon dëkk bu mag yi bu ngeen gisee ci jamono yi ëpp Diouf ak président Abdoulaye Wade daa def at mu jot mu maye courant bu bari ci dëkk bi mu jug Abdoulaye daane def at mu jot ñaari at yu mujj mu juumut at mu jëkk ma cinquante kilomètres lay mu mujj ba deux mille onze joxe cent kilomètres cent kilomètres yooyu itam dañ ko daan tas ci quartier yi dëkk bi ndax xam ngeen Touba li mu bindoo benn quartier boo dem ña fay dëkk benn kilifa bu sant sant ay jox ko ay teen booy daal mooy dëkk ne Sëriñ Touba jox ko ndigal mu ne woon ci bitti Touba Touba dem ba mëdd ko la war a si Touba si ko kilifa boobu ñaan ko am noonu lañ ko daal séddale ci biir kër yi def nag 2012 bi président Macky Sall ñëwee ci nguur gi. ministre ba yoroon industrie bi mu xoolee kayit yi xamul nu mu demee ndax nguur bu yees loolu tout toujours baaxoon na ci am bi mu xoolee kër yi ñu tur Daaru Xudoos tur Daaru Minaam tur Daaru Muxti tur Daaru Salaam tur ko Mamour Diarra tur ko Cheikh Ibrahima xamul nu mu demee mu ne man xawma courant buy jëm ci ay kër yi kilifa li ma xamoon courant bu jëm ci population wax ko ci conseil des ministres yàlla am ci loolu laa waral excitation yi ñu ngi koy def sax waaye amul bu jaaral ci kilifa dañuy def def ko ci dëkk bi ñu ngi ci dëkk bi sax duñ ci am dara loolu sax damaa bëgg mu leeral ndax kilifa yëpp dañuy ñëw ci man di ko bu ma ko mosaan sàkk fii dama ko waxaat bu ñu ko def te ma fa leeral assainissement bu ngeen ma wax ci loolu kon weesuuma ci xawma ci lu weesoo defar nañ seen i plan defar seen i itam ba noppi ne ma fii lañ ko def xaw ci dara suñu loolu suñu loolu man mii di wax ak sama xel gis ne dina du courant boo xam ci bi waaye bañ ko daa joxee ñii la daal di ndax kilifa bu ne taalib bu ne taalib bi amul accès ci maa dem ci nguur bi di leen ñaan courant ak seen kër ku ci ne sa kilifa ngay dem seen kilifa yooyu itam. ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa lañu war a ji kooku jox ma kàddu ma war ko liggéey noonu rek la waaye moom li ci am solo rek mooy loolu moom suñu wàllu boo xam ne ñoo ko wax mooy wàllu am loolu yëfi état bi yëfi Tuubaa ndax Tuubaa moom yaakaar naa la ñu war a def lépp ñu ngi koy def ndax Tuubaa képp ngay dikk di dugg ci dëkk ba fekk ak hôpital ñu la day après nga gis éclairage public ñun la day rabal nga gis ay ay poste de santé ñun la ab day rabal nga gis ay tëli ñun la ab day rabal nga gis ay résidence ñun la teel rabal kon moo la ñu nangoo liggéey jàpp naa ci suñu la am kon nag màgget gi moom borom def na ko ñun nag li ngeen ci war a xam ne ni yéen a ngi ci kon ñu ngi dugg fi ñu ci toll seen Ousmane ñoo ko seen jaatu ñoom ko leeral ak service yi fi teew waaye xam ngeen loo xam ne Serigne Touba ba mu koy njëkk rek génnatoon biir këram waaye daal di woon na it ne màggal gi dana dem ba àgg foo xam ne ku dul man mi ko woote ak yàlla suñu boom bu bind nii doxam dafay teew ci mbooloo tool xayma bi xam ne nag waa université ba ndax mu waar loolu moo njëkk def xayma 2011 moo jur sax màggal gi tey ñu def ko fête indépendance ba ñu defee xayma ma la ko njëkk daa naan màggal Touba day daal économie yooyu ndax nit ñi duñ liggéey bañ defee étude bi nag ci lañ xam ne maa ngi day yëkkati économie bi keroog rek waa président Abdoulaye Wade man mu waraloo maître Madické Niang mu waraloo waxee ne ko dañ ko defee ren am naa dara loolu mënti ne te ndax Sénégal conflits yi dafay bari mënoo defal Touba bàyyi fa des boo ko defee di indi coow mënoo ko bokkul. man mii di wax la dëkk bu fekkoon damay défendre Koki wax jooju rek moo ñu topp ba léegi boo xam ne dëkkub sëriñ la màggal xool lu tuuti ñu def ko xam bu jàllee ba déwénati Touba tollutu foofu ndax dëkk boo xam ne dem nañ ba da na ngeen bi ñuy def étude dañoo wax ne Touba mooy. ñaareel dëkk bi gën mooy Sénégal ba fa biñ mi def recensement bi ñuy ànd ak waa commune bi ak waa Touba kanam ak mbooloo mu bëri dikkee bare ko recensement bi ngeen di def dafa baaxul bu fekkee baaxul nag ñun danañ jël suñu responsabilité defal suñu bopp recensement ndax comme état buy natt day xool ñu dëkk ci dëkk ba gis nañ ne Touba wóor na ne li fi dëkk mën na ñaari million yàlla def ñoom ñu def recensement bi gën nañ ci ay yóbbu ba wax ne Touba léegi tey mooy dëkk commune bi yëpp ci Sénégal doonte la nag fa mu àgg lépp ñu bari bindul waaye baax na ba tey ndax lu ci mën a xew étude bi nga xam ne université Bambey def na ko daaw muy étude bu wóor boo xam ne ko dem bëgg gis kii bi da nga ko gis fu wóor la tëjee bi ñu xoolee daaw màggal bi dépassé yi jëm ci biir kër yi dem na 74 milliards. dépense jëm ci kër yi dina la bu ñu xoolee xar yi ak nag yi kon loolu bu ñu xoolee budget total bi yëpp xaalis bi jóge bitim réew am na ci génn kër bu yónnee xaalis bi wax rek wax na ci làmb ñoom ne wax ñetti fan màggal bi 3 milliards dugg na ci biir dëkk ci moom benn kër bànkee xam ngeen ne ko fa dem day am jëloon ñoom kon màggal Tuubaa li muy tuuti ci réew mi ñoom ci seen xayma yi gën a néew weesu na deux cent quarante milliards kon deux cent quarante milliards yooyu képp naa ne xanaa ñaari at wala ñetti at képp bu ñu ko defoon war naa mën a defal dëkk bi te dëkk bi ko xam ko ne xam ne Tuubaa nag duñ jàmbat. ndax hmm. loolu Sëriñ Tuubaa dañu koo tere képp ku fi nekkee jiite réew mi boo defee lu baax dañ koy sant. bu fekkente ne lañ séntu mot tam du tax ñu xarab la loolu moom suñ tubaab yi ñu ko fee nashaxtu bi shukri shikaayatan fala ashkuru yow duñu abada waaye bu ngeen di xool ci li weesu lépp ñoom ñëpp jàmbaar lañ leen sant nañ leen bu a baax ndax waaye bu ñu xoolee Tuubaa dayoo bi fi mu àgg xam ngeen dëkk bi kenn kaaru sax kaaru dëkk bi sax dañu koy tëj assainissement bi itam xam ngeen daanaka dëkk bi bari na suñu tool waaye ba kër yi wër jumaa yi fii ñu la ko ci xam ngeen ne loolu dëkk bi dañ yàq loolu nag responsabilité xam ne ndox mi li muy baax baax baax. réussi bu baax moo ko gën ndax 38 forages wala 37 xam ngeen xëyut ci Touba ndax capital région boo xool ay fukki forages fukki forages yi ñaar wëyeesu te seen ndox moo yor kon Touba réseau bi dafa yàqu am na ci foo xam ne ñu ko nga wax boo demee ndox maa nga ci nga dem kër Sëñ ndox maa nga ci biir armeel yu bari yàqu nañ ndax ndox mu bari boo demee kër Sëñ ndox maa nga ci suñu Cheikh daal tabax bu ñu soxla def lu ne lañ teg daal jëm ngir mën ko faa tabax boo demee fépp ba ci pencum daal xoos comme ndox mi mi ngi bëgg yàq dëkk bi kon loolu mooy sax li gën a jàpp mooy assainissement bi ak réseau bi kon loolu ñu nekk fàtte ndax màggal bi day loo xam ne mooy Sénégal ndax ginnaaw jaamu yàlla gi ci Serigne Touba santaane wax la mu ci deere waxoon ko Cheikh Mouhamadou Moustapha ne ko bu ñu demee ba ëllëg. àjjana amatu bis waaye ci kàttanu yàlla yàlla mi nga xam ne bi moo bindoon adduna képp ku daa ci sama bis bii da nga gis teraanga yu doon ko ci yow yoo da nga gis ne kon màggal gi jàmm bu amee ci Sénégal dëgg dëgg dëgg dëgg kenn tudd fi wàllu xeet Sénégal gépp nekk benn màggal gi bokk na ci suyu ni ci wax ndax étude bi wane na ne cinquante six pour cent yi ci ñi màggal ay wolof lañu bu ngeen dee pour cent yi ay séeréer lañ onze pour cent yi ay alpulaar lañ cinq pour cent yi ay pël lañ trois pour cent yi ay joolaa lañ un pour cent bi jeex mooy yéngal xëy bi ñu xoolee màggal gi itam wax nañ ne quinze pour cent yi doonuñu ay taalibe Sëriñ Tuubaa seen mbokk jullit dañ ñëw àndal ñu màggal un pour cent yi nekkuñ sax ay jullit fa kon loolu lii gën a dëgëral lii gën a dëgëral bennoo Sénégal naa dem tubaab suy di ci wër bëri na kon nag ñaar ñu ñu ñaar ñu ànd ak ñoom ba yàlla dimbali ci ba ndam lu ci daa ñu am ci lu ko yéen ñi nga xam yéen a koy taxaw ci moom suñu borom dimbali rek kàttan ak ba lu ngeen ci daal rek mu gën a yomb ci yéen ndax xam nañu tolluwaay yu réew fi mu toll moo am nañ ci soñño yu am sax bu jël àggite ndax seen daa dinaa wane ku ne la jàkk bu ko ne gëstu nit bu fekkente ne xam na jàngoro xam na ko ci wax foofa du doon ak si biiru sonb foofa lañ ci yawarkat yi asalaamaaleykum wa rahmatullah lam Lord.